liggéey sur le contenu local ñu bëggoon xam contenu local boobu fu ngeen ci toll ak société sénégalaise yi naka la ñuy def ba am si ñu gis si suñu bopp à 100 pour cent ak lan lañ ci war a moytu très rapidement merci Der euh, une transition par rapport à la Mauritanie exactement parce que xam nga réservoir bi gën a rëy euh, def presque plus de 500 millions de de gaz nga wax GTA suñu diggante la entre ñun ak Mauritanie mm-hmm. te jurisprudence bi nga xam ne mooy régler loolu dafay wax ne bu ay ressources yu mel noonu feeñee ci diggante ñaari réew mhm. benn amul benn réew bu mën a taxaw ne man maa ko moom mën kopp ñaareel ba ñaari réew yi benn amul ci intérêt ñu bañ ko exploiter mhm. ndax c'est une ressource stratégique ah. matière première la boo xam ne mën nañu développer ñaari réew yi kon lu ñu téye comme doxalin mooy jàmm d'abord. Mm-hmm. ñu wax peaceful exploitation bu jàmm amul te man munu ma ne maa ko moom yow munu ne yaa ko moom kon ressource bi. nuñ koy bokkee kenn du ko jëriñ mm-hmm. moo tax jàmm dañu war a xool moo jàmm am na solo. et côté boobu président Macky am na ci taxawaay bu mat taxawaayu homme d'État taxawaayu nit ku sauvegarder les intérêts supérieurs benn bu nation Sénégal mais aussi bu nation mauritanienne lu nekk dégg nañ ko fi mais moom quand même c'est un homme de l'art pétrolier la xam na li ñuy wax jurisprudence dans des ressources yu nekk ci diggante ñaari réew bu jàmm amul duñ ko mës exploité ci coow lay mujj ak yi conflits yoo xam ne mën nañ di sax ay guerre ak lu nekk heureusement Sénégal ak Mauritanie dépassé nañ loolu moo tax ñun li ñuy ñaan yàlla mooy jàmm am Mauritanie jàmm am Sénégal parce que ressources yooyu c'est des ressources stratégiques pour ñaari koom-koomu réew loolu am na solo trop la paix dans la sous-région la paix vraiment dans dans dans les rapports commerciaux et internationaux et sans la paix on peut pas bâtir un développement économique mënul lekk tax jàmm Mauritanie ñun dañ koy ñaan nu ñu koy ñaanee Mali loolu am na solo trop Euh, Abdou pour def transition ci mm. pétrole gaz bi contenu local man mun naa la ko tënkal si ñeenti pàcc d'abord li ko tax a jóg. oui ndax. très voilà président dafa ne dafa bëgg ñu tabax économie pétrole gaz mu bëgg sénégalais yi gis seen bopp si pétrole ak gaz bi ndax. su soumettre na référendum ñu ni pétrole bi ak gaz bi peuple bi moo ko moom état bi dañ ko délégué rek mu gérer ko mais peuple sénégalais moo ko ko peuple sénégalais moomee nag il faut que sénégalais bopp mu ni nañu fexe ba si chaine de valeur pétrole bi répp métier de base yi ci nekk ñu développer ci les compétences locales donc contenu local bi day permettre xaalis bu bari milliards yi nekk ci industrie pétrolière bi bu ñu koy exploiter depuis la recherche jusqu'à la production doomu Sénégal yi maanaam la main-d'œuvre les entreprises sénégalaises les PME et les PMI sénégalaises population locale yi nga xam ne ñoom la ñu impacté le secteur parapétrolier c'est-à-dire le raffinage la pétrochimie la production d'engrais par les résidus du pétrole ñu fexe ba secteur yooyu yëpp mën a capter les ressources financières yi nekk sur la chaîne de valeur pétrolière donc c'est la préférence nationale préférence pour la main-d'œuvre sénégalaise, les Sénégalais, mais préférence pour les entreprises nationales. moo tax mu am cohérence ñu voté benn loi boo xam ne si sur le contenu local. Demba Gaye leeralal ma euh, Séné euh, société da nga wax droit Sénégal wala société bi appartenant à des nationaux. société souvent aussi ça pose société de droit sénégalais. loolooy benn russe benn russe benn chinois benn américain mën na jóge fee mbubboo ma mbubboo la mbubboo Charles ah, mbubboo mbubboo wala non non non non damay laaj. non société de droit sénégalais. Hmm. au moins cinquante pour cent des actions ay ñoom ñoo ko détenir. ñoo ko moom ñoo ko loolu leer na. Hmm. ñaareel bi il faut ñu àgg aussi ci métier yi parce que dafa. am catégorisation des métiers moom régime boo xam ne dafa wax ne lii c'est un régime exclusif boo xam ne sénégalais yi euh, ñoom ñoo koy ñoo koy des lii ñu ne régime mixte la boo xam ne entreprise sénégalaise yi mën na ñoo def joint venture maanaam mën na ñoo ànd lëkkaloo lëkkaloo ak entreprise boo xam ne bu nekk bitim réew la ñu créer société de droit sénégalais boobu pour mën a capter les ressources financières yi nga xamante ni ñoo nekk ci chaîne de valeur maanaam mun a apporter leur expertise mën a am ay marché mën a def ay prestations de service mën a def ay construction beneen régime bi dafa nekk régime boo xam ne euh, du régime boo xam ne euh, mën nañ ko bokk parce que foofu c'est le cœur de l'activité maanaam c'est presque ce qu'on appelle la géologie la la géophysique les réservoirs les ingénieries de réservoir donc c'est le cœur de métier boo xoolee sax foofu li fa nekk ci opportunité bariwul muy mel ne tey bu ma la ko doon xaymaal foofu mooy booy def ay cercle excentrique day doon benn cercle bu ndaw mais yeneen cercle yi ko wër yépp nga xam ne moom la ñuy wax par exemple cercle concentrique. voilà les services les services par exemple euh, reliés les services spécialisés. Mm. les services directs et les services indirects. Mm. yooyu yëpp entreprise ak entre ak euh, PME PMI sénégalaise ak ay sénégalais war nañ si mun a liggéey. et li loi bi wax aussi mooy dafay imposer parce que loi la dafa am sax décret d'application dafay imposer que entreprise yooyu. bu fekkente ne nii ak compétence égale sénégalais war naa mën a liggéey liggéey bi ñu jox ko sénégalais bi bu fekkee fekkente ne nii entreprise PME ou PMI sénégalaise respectant les standards de qualité de performance en terme de délé en termes de de prestation euh, en termes de prix en termes de délai de livraison et de paiement am na compétence yi ñu jox ko Sénégalais mu imposé waat aussi entreprise yi. waaw mais non non non. da nga am loo koy naaj mu imposé waat. il faut le laisser parler. mu imposé waat. mais li mu waxee da ngeen am lu ngeen ci laaj laaj nañ ko. am na man am na parce que man. waaw mais yéen bu ngeen amee gan tey bu ngeen amee gan invité leen. parce que man li ngeen wax bu ngeen amee gan invité leen. man li ngeen wax nii xanaa non wuyu ma wuyu ma wuyu ma non wuyu ma wuyu ma xam nga xam nga lan moo ma jaaxal. que ñu déglu la nii. c' est comme si man nekkuma Sénégal. di nga li may wax nii. bu may màggale. non non non bu may màggale. non non non damay daaneel. mooy moor mooy moor. damay daaneel. mooy moor. damay daaneel xam nga lu tax. xam nga lan moo tax. voilà voilà non non non il faut ko duma àtte xam nga la may faral ay man su ma lay dégg ngay wax ma àtte su ma dégg ngay wax ni bëgguma ñu dindi suñu micro ma naan kan xoolal li ngay wax ni yëpp ya pas ay sama kër duma àtte mooy ay contenu local comme ça booy rek da ngay wax wax sonn gaay na la wax xoolal xoolal contenu local xoolal loi ci contenu local xam nga xam nga dafa am dara loo xam ne dafa am dara loo xam ne aussi euh, mënu leen ko jël rek mu nekk benn discours bu rafet te ñun reflété wul dara ci li ñuy dund. <laughs> tous les jours cest à li ngay wax ni yëpp. du Sénégal bi. sa à dire amul dara dara ci Sénégal. <laughs> amul ci benn xoolal amul ci benn secteur. Hmm. bu li ngay wax nii reflété wu. ci li ñu waxuma pétrole génnagul a gaz de xam nga. xam nga tey jii naan ay ay ay ay cinquante pour cent man xam nga de euh, soci entreprise bi cinquante pour cent sénégalais moo ko war moom. cinquante pour bu ñu demagum ci côté yooyu di nga boo leen bëggee dëggantaan contenu local exister il faut mu universel. ci Sénégal bon quand je dis universel peut-être c'est le monde mais en tout cas il faut mu national. Mm-hmm. il faut ko ngeen gën ko ngeen gën ko yaatal bañ ko teg rek ci secteur ay pétrole ay gaz dans un pays bu bëgg a bu bëgg les nationaux la ñu avancé dafa war a nekk loo xam ne dans tous les secteurs. dafa war a exister. man je rêve d'un pays boo xam ne bu ñu nee ok dëkk bi boo fi bëggee ñëw nga créer fi entreprise il faut que benn nation ci dans tous les domaines ah benn un un Dubaï, voilà dafa war a bokk à hauteur de pour cent parce que xam nañ ni entreprise yi fi am doole yépp yi fi quatre-vingt-dix pour cent entreprise yi fi am doole sénégalais yi wuñ ko loolooy dëgg. donc bu leen ñu jël discours euh, contenu local bi c'est comme si on rêvait mais en réalité on sait très bien très bien que dans un pays ou ñu ngi xeex. ak parce que supermarché jóge na France daaneel suñu jaaykatu boutique yi ins dëggal ko ci quartier yëpp loolu sax ñu ko contrôler ci ay ay légumes ak ay ay bu gaz ñëwee doo ko doo ko doo ko ak ak pétrole xam nga lan la parce que non en réalité li ngeen ñuy wax li ngeen ça c'est un discours politique qui fait rêver oui et puis mais malheureusement a man sa man man man sama man mu man man ay mbëkk bal teg dënn dóor mu dugg am ay bokkaale am mais yéen seen kër gi nii yéen lii mooy seen waaw mais non parce que doo fi du fi ñëw mais ay non non non mais waa ji bàyyi leen ko mu wax non non non parce que dugg ñëw comme seen waaw bon non yomb ñu toog rek bett ko non non jamais doon nañ ko bàyyi mais Ablaye mais jamais barka xeex loolu barka mënoon nañ ko baal mais dafa dem ba dugg ci ay cercle extra concentré cercle concentrique la wax. waaw du Sénégal bi c'est-à-dire la loi. c'est-à-dire la loi. Bouba wax na ko. et leur application dans ce pays. balaa nga ne loi. oui dëkk bi. kan moo yor banque yi. voilà fa dëgg yàlla. merci waa bitim réew waa bitim réew. 60 pour cent yi na euh, c'est des Marocains. tubaab bi ak loolu. sauf BND. E. li ci des ci li ma ak yeneen banque boo xamante ne c'est pas les nationaux qui ont la puissance financière wa amoo benn souveraineté financière qui euh, monétaire mais la puissance financière ce pas les nationaux qui l'ont ça pose un premier problème deuxième problème assurance yi ñun yoruñ c'est-à-dire que mooy ba ngay wax sànq euh, avant ngay ne ñu voyager ak les quatre ñun ñu am fii d'abord dara am lu ñuy rien nada tu imagines qu'aujourd'hui dans la dans la compétence muy ba muy wax cercle concentrique dafa am loo xamante ne ñoom ñoo ko mën a def et puis Tivaouane plus Tivaouane si nan lay jox marché yu fa nekk mais ñun amul compétence yooyu benn amuñu ko. Mm. on découvre le pétrole là. donc ay compétence yu bees la mais tey boo bëggee ñëw bokk dem banque ba ban banque moo lay jox xaalis. dans le pétrole la amul a ah bu ñu war a tël ay tabax ay xeer yooyu xaw ma dugal ko si biir ay poto ci pees xaw ma ñaata tax mais loolu dañ ko ñaata nga ko fi mën c'est-à-dire en terme de d'investissement pré investissement c'est là le vrai problème avec le, le contenu local ça veut dire que on n'a pas une souveraineté qui nous permet de de de de de de concrétiser le contenu local. alors Demba Gaye. c'est-à-dire euh, poursuit. c'est justement par rapport à. Voilà. toutes ces. préoccupation maanaam inquiétude ak préoccupation yi ñu leen soulever yëpp mhm. loolu moo waral la loi ki vise au moins cinquante pour cent de contenu locale si secteur pétrolier et gazier je m'explique bu ñu bu génn cadre secteur pétrolier et gazier d'abord waaw c'est important mhm. parce que bu ñu waxee contenu locale ñu dugg ci supermarché dugg ci leneen ñu ngi génn ci sujet bi On parle du contenu local dans le secteur pétrolier et gazier. C'est important. Et ku nekk xam na ne benn c'est un secteur risqué et à forte intensité de capital. am na luy wax recherche exploration pétrolière mais loolu bu fekkoon fekkoonte ni ñun suñu ay société nationale yi nekk fii mun nañ ko kon du ñu jéggaani feneen. da ngay investir au moins cinq cent millions de francs CFA par jour pour rechercher du pétrole et du gaz. avec un risque énorme de ne rien trouver. waaw mais loolu. loolu xam nañ ko mais attendez non mais attendez. Ouais, ça, mais, mais attendez. Non, non, il faut, il faut laisser parler. Non, non, non, non, non. Oui, non, non, non, non, non, pas forcément Charles. On l'écoute. On l'écoute comme il nous a écouté. Charles, il t'a écouté. Charles, détourne-le. Charles, détourne-le. Il t'appelle Abdou. Ouais, mais. Ah. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, <laughs> foofu. Charles baal naa la. Foofu c'est normal que cercle bi tuuti wala c'est pas normal cercle bi tuuti. Il faut que cercle bi tuuti foofu. Qu'on se dise la vérité. donc li bon li bon mooy te loolu heureusement loi bi aar na ko te am mooy ñu ni pétrole ak gaz lépp de la recherche à l'exploration la production lépp ay compagnie yu jóge bitim réew ñoo ko loolu éviter nañ ko loi bi éviter na ko décret d'application bi éviter na ko parce que loi la ay loi ça s'applique sur tout le monde. donc ça c'est important il faut saluer cela. et loolu cohérence la c'est-à-dire dañoo acté la waxoon ne les revenus les ressources appartiennent au peuple la ñu waxoon ne. on fait la préférence à la main-d'œuvre sénégalaise aux entreprises sénégalaises aux PME et aux PMI sénégalais. ça c'est non politique. attendez leneen li ngeen amuñu moyen. ça amuñu moyen. il faut écouter mais il faut écouter. parce que xam nga lan ngay wax. c'est-à-dire da ngeen amul leen moyen Abdou. damay pourquoi moyens yi état bi même a pensé à ces moyens. waaw c'est important. Il y, a un fonds qui a été mis en place pour accompagner les PME et les PMI sénégalaises, pour leur permettre de pouvoir fédérer leurs moyens, leurs compétences et leurs capacités avec des compagnies étrangères pour pouvoir postuler et vraiment tirer profit de ces marchés. Ah, ça, c'est un. Deuxièmement, mais deuxièmement, Julien. Non, attendez. Deuxièmement. Non, Attendez, deuxièmement. non. Non seulement du woon émission bi. mais aussi ah si. Regarde le sous Non, non, non. Mais tout ça, c'est le contenu local. Non, non. Mais tout ça, c'est Malheureusement, vous n'avez pas écouté. un problème en dil xool bu ma la yónnee. xam nga bi nga ñëwee toog fii nga ma ne loo ma yónnee tey wala lu ñuy def. non non non c'est une fois arrivé si. man ko je règle ce problème la nga wax ni man du ma dindi ci sama question. waaw bu la neexee. mais il faut regarder. parce que non xam nga xam nga xam nga lii muy wax ni yëpp. li ngay wax ni yëpp waxuñu la ni objectif bi wala bu nekkee du baax pour réew mi mais xam nga saa ku la yee jox la ndékki bu la nee di nga reer di nga koy gëm. mais booy wax ak benn sénégalais nga xam ne papis bi bu wàccee fii dina jël autoroute bi ah fay 1000 francs fayaat 300. yoon ba la fa nekk yëpp amul benn national bu ko euh, sénégalais bu ko moom bu dee euh, bu dee bu dee banque la France la bu dee station la France la mais nga koy wax benn sénégalais bu jàkkaar la yow mais loo buggee mu gëm la hmm. xam nga dama ne la exception moo warul am c'est justement ça réew du parce que gaz la pétrole dañ ko war a traité d'une façon boo xam ne dafa logique dafa am te nit ki aussi ci li liñ ko tàmmal ci li muy gis loolu la mën a basé wu pour li ñu koy wax mu bugg ko dégg wala mu buñ ko bañ a dégg mais li ngay wax ni ay contenu local ak affaire yi ñun mun pourquoi ñuy am ay réticence parce que dafa amul ci benn domaine non si benn domaine si si Sénégal ci Afrique fii yoo xam ne les nationaux dañ ci gis seen bopp moo tax sax bi ngeen naan bu président yi ma ne nationaux yi na koo xam ne punkal la du may faral diir sama message mais rek ma yónnee message ne ma billaay balaa ñuy wax waxi dugg yi nan nañuy wax marché yi fii li nga ñuy wax ni yëpp dafa ça fait rêver mais en réalité du dara loo xam ne ñun lu ñu dund la mais Bouba la réalité la plateforme et puis on parle de gaz et de pétrole mais la plateforme pétrolière on parle et gazière de gaz pétrole qui va gérer les activités mais c'est c'est c'est c'est c'est à des Sénégalais hmm. c'est le patronat sénégalais qui a aujourd'hui le, le, le, le privilège d'avoir cette plateforme pétrolière et gazière et vous me dites que ça c'est pas du contenu local. Mais c'est la plateforme qui va vraiment être la base même pour les opérations pétrolières et gazières. Mm. ça c'est un cas concret ou c'est pas un cas bon, concret. mais a c'est acté. c'est acté. c'est acté. c'est acté. il y a il a des entreprises sénégalaises. oui du euh, ma qui sont là-dedans. c'est le patronat sénégalais qui est là-dedans. c'est une réalité. donc ce qui est important vous savez euh, Charles la malédiction commence d'abord dans le mindset. Et, et moi, attendez, si. Vous savez pourquoi je dis ça Parce que, quand, quand même, euh, les pouvoirs publics vraiment mettent en place des politiques, des lois qui permettent de sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation et mhm. des Sénégalaises et des Sénégalais, moi, je pense qu'il faut s'en féliciter. Et veiller à ce que... veillez à ce que. mais vous n'avez pas. Vous n'avez pas non, que... non non non vous n'avez pas évacué cette histoire de de de de, de BBC. BBC. D'abord sur le pétrole et le gaz. Oui. non non non mais xam nga xam nga non dama ne dama ne ça ne ne ne quittons pas du tout non non non non allons-y petit à petit munoo munoo ñëw munoo ñëw toutes les questions une par une je vais répondre il faut commencer par résoudre cet antécédent là d'abord on a commencé par cette question si on avait commencé par cette question j'allais en parler toutes les questions sur le pétrole et le gaz je suis à l'aise mais organisons le débat toutes les questions relatives au pétrole je suis à l'aise. Ah, oui, non, non, oui, non, on, a, on, on a plus trop le temps mais on va s'organiser. Donc ça c'est clair. Oui, vas-y, s'il te plaît. Mais organisons le débat. Ah, c'est sa première. il est dans l'esprit. Non, c'est la première fois. Il est dans l'esprit. Mais il ne se laisse pas faire. Non, mais c'est bien Gaye. Il ne se laisse pas impressionner, c'est bien. Non, toi laisse tomber. Je parle de mon domaine. non mais gars yi ban maa am la parole toutes les questions. oui je suis à l'aise c'est-à-dire posez-moi toutes les questions. sur le pétrole eh, Sénégal. non non yow da yàgg seetaan jàkkaarloo grawul. kii c'est mon directeur de campagne. non il est il a dit Abdou. non man moom problème gars yi dafa simple. <laughs> ça veut dire que tey le contenu local buñ ko daroon xayma si xaalis sénégalais yi ñaata lay toll. d'abord li ma lay répondre li ma lay répondre. quel est le marché bu ma la joxee bu ma la joxee cent francs cent francs de revenu pétrolier ci xayma mun naa la ne presque plus de soixante-dix francs yi ci Sénégal lay des. non waxuma loolu waxuma loolu ah. loolu la dama ne tey bu ñuy wax ah, le contenu local tout ce qui est lié au contenu local te nga xamante ne bokkul si exploitation yuy senior yi di def ak junior waxuma loolu mhm. contenu local buñ kay xayma si xaalis ñaata la pour le marché du contenu local léegi nit ñi yàlla da nga ne sànq dafa am benn fonds xam nga dama la ne. ce sont pas les banques étrangères yu nekk fii ñooy ñoo di jàppale suñuy mbokk yi di leen jox xaalis pour ñu dem investir. ça on le sait Covid bi jël na ko. fi nekkoon xaalis Covid bi bu amee fonds. c'est-à-dire man c'est tout. non fonds bi xam nga y a y a des décrets d'application dafa am décret d'application boo xam ne d'abord dafay la mise en place de ce qu'on national de suivi du contenu création et mode de fonctionnement loolu c'est important am na décret boo xamante ne nii moom mooy prévoir un fonds boo xam ne day accompagner PME yi ak PMI yi mais loolu boo toogee ne ma ñaata la fii mënu la ci tontu xam nga parce que c'est mm. comme euh, euh, euh, un projet boo xamante ne nii il va falloir ñu xam Euh, ñaata lañ financement bi waaw ak ñaata besoin yi. fan la su ressources yi duggee. mais Abdou non non mënoo fi toog mënoo fi toog di ñu wax lii yëpp nga foog ni ñun dañuy toog rek naan la way c'est mais c'est beau hein ce mais malheureusement dañuy am du maal parce que tout simplement fi nga ko fi nga ko yóbbu moom moo moom la ñu mësut a gis mu egg foofu. Oh, il faut nous comprendre nekk de. non nga ni. bu la nekk de. et j'ai comme vous savez pourquoi à chaque fois que moi je parle du pétrole du gaz moi je parle avec beaucoup je parle avec positivité. Oui. Moi, ne juge pas des gens qui font des fausses et graves alertes. Parce que vous savez pourquoi damay xool d'abord la volonté politique. Non,

Euh, man man xaalis bi laay wax pour terminer parce que Pierre Da Silva commencé na ma teg pression boobu ngay bañ. Mhm. eh bien contenu local bi. buñ koy lan lañ ci war a moytu ak ñu ci war a ragal ba ni ngay wax ñu mën ci gis suñu bopp bu baax. d'abord d'abord li ñuy wax contenu local dañu war a mu nekk un contenant local. Hmm. mooy lan maanaam. contenu local warul nekk un surcoût parce que boo xamante ni par exemple yow bëgg nga say entreprise jot ci koom-koom bi nekk ci pétrole gaz bi war nañ leen a qualifier war nañ leen a renforcer de compétences par un transfert de technologie ah, war nañ leen a jàppale ci ay financement ba ñu mën a ànd ak ay entreprise privées pour développer seen compétence mën a jël ci marché yi. mooy société de droit national donc loolu loolu dafa am solo xam nga dafa solo bu fekkente ni par exemple dama bëgg papis sénégalais la bëgg naa jàppale papis pour papis. Mhm. am marché. il faut ma fexe ba papis donte sénégalais bu ma ko joxee marché. Mhm. papise du yàq. waaw mu defar. c'est-à-dire papis dama koy renforcer en compétence renforcer ko en ressources. par un transfert de technologie te loolu lépp dañ ko imposer dañ ko imposer compagnie internationale yi imposer nañ leen sax ñu investir sur la formation et le renforcement de capacité des cadres sénégalais mm-hmm. cela veut dire quoi ça veut dire que nekkul rek un vœu pieux ni un slogan ça a été acté ça a été traduit en acte concret et inchallah inchallah je pense que y a des hommes et des femmes qui sont là faire vivre et animer ces textes, ces lois, pour que cela puisse vraiment porter ses fruits et ça c'est ça ce qui est important. kii yow xoolal xoolal ak xoolal politique xoolal fi mu nekk nii politique politique rek nga fi nekk di wax. affaire politique nga wax mais honnêtement honnêtement moom laay wax nii. papi ça fait rêver moi j'ai du mal à. Mm-hmm. ni nga koy waxee nii. j'ai du mal à d'ici quelques années on se retrouvera inchallah. d'accord vous me direz mais franchement vous avez raison. mais non non non mm-hmm. est-ce que di nga nekk est-ce que di nga nekk ci poste bi nga nekk ba kii. ba léegi yàlla rek affaire la. parce que ah, man bu ñu la déggee j'ai l'impression que dans 10 yow wóoroon na sa poste bi yaa ngi fi nekk peut-être que keneen kii ñëw nañ lay xalaatee attention. donc ci loi ah, bi la préférence nationale est actée mun nga ñu rassurer ci loolu. incha allah. Hmm. leer na waaw ah, kon baax na <laughs> gis-gis. heure bi nga ma waxoon